حق البكاء على سادات الأموات تبكي الأراضي عليهم كالسماوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مبوك جلني مبوك جروب واتساب سوبي سيدنا صلى الله عليه وسلم noo ngi leen di fàttali naafile tuub bàkkaar di mu daan ko soññi julli ñi ngir ñu koy def tuub dellu ci yàlla naafile gi ñu ngi koy def samedi ci ngoon ba sëdd dimanche samedi ci ngoon boo jullee timis balaa ngaa julli gee diggante boobu ci nga koy def naafile gi juróom benn rakkan lay doon rakkan bu ci nekk fatiya ak juróom ñaari lixlaas ñett sëlmal lay doon da ngay julli ñaar sëlmal julliwaat ñaar sëlmal julliwaat ñaar sëlmal kon muy juróom benn rakkan raka bu ci nekk fatiha nga ci def benn yoon ak juróom-ñaari lixlaas muy xul wala axat ba saar ba jeex bu ci nekk juróom-ñaari yoon boo paree nga toftal ci astaghfirullah téeméer yoon wala lu ko ëpp nga ñaan yàlla suñu borom jéggal la nee na képp koo def nga ko na nga am yakin ak yaakaar gu mat sëkk ci ne suñu borom jéggal na la waaye daana tamit tuub benn la li ko def na la naqari na nga ko yore ci foo toll te nga fas yéene du dellu mukk daana ci teggit ne boo ko defatee suñu boobu dana la teg daan ñu gën a métti yim la tegoon euh, naafi gaa ngi ko ci na alsan salaam ki doon jottali kàddu yi seen mbokk aadama salaam ñaanal suñu asan salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu لكن قاموا سراعا بحياة الجناد بوفدولا بذكر الله خالقين فنوم في الليل باوف